abonné leen ci suñu saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju mi ak ci bitim réew. Euh, di sant d'abord sunu boroom bu baax a baax ndaxte ay croyants lañu te xam nañu lii ñëw tey euh, dina ñëw jamono ju ne ci ku ne. bu ñëwee kon li fi des mooy sant suñu borom sant ka encore une fois di jaale le président Bougane di jaale Wali Seck di jaale vraiment toute la nation sénégalaise di jaale aussi yéen ñi nekk ci presse bi parce que seen collègue la doon diriger un grand groupe de médias di leen ko jaal di ñaan suñu borom. mu daje njéggalam ak yërmandeem mu xaral ko ci àjjana yi gën a réaction bi nga njëkk def sax mooy euh, poste boo xamante ni def nga ko euh, di wane sa euh, soutien par rapport ak ki nga xam moom moo di Bougane Gueye Dany seen relation wane na ko effectivement parce que Bougane c'est un jeune frère c'est un ami c'est quelqu'un bi nga xam ni xamante nañu depuis Saint-Louis donc yàlla def nu ñëw fii ndakaar daje daje ci politique bi mu am taxawaay bu rafet donc lu ko dal rek dañuy jàpp ni ñun la dal moo tax la réaction a été spontanée